jëm ci wàllum ñàkk yi loole nak la taxoon mu koy wax bokk na ci wax réew yooyee ñu daal di gestu ñi nga xam ne ñooy réew yu néew doole yi kàddu yooyu nga xam ne njiitu réew mi di Macky Sall yëkkati woon na ko directeur général bu organisation mondiale de la santé daal na koy dëggal ba pare ñaawlu na ñàkku solidarité internationale gi nga xam ne am na ci wàllum vaccin yi ndax nee na bëri na ay millions yi millions ci ay liggéeykat yoo xam ne ñoo ngi ci bëre bu fajukaay yi te ñëkkooguñoo maanaam ay médecin te mbir mu doy la moom directeur général organisation mondiale de la santé daal nay wax ne am na ay réew yoo xam xam ne seen bopp rek jamono ji li nga xam ne mooy vaccin yi yéen a kaay gi di source nee na coronavirus bi ci réewum Sénégal mi ma ngi yokk bu baax a baax journal bi daal di xëy fësal ci xët mu njëkk daane attention il y a gi de Le Quotidien na nag coronavirus beeg variant delta bi li nga xam ne moo ci gën a doy waar mooy ndaw ñi la gën a sonal ndax jamono ji bëri na ci ay ndaw ñoo xam ne ñoo ngi ci cas maanaam ñu nekk réanimation yéen a kaay gi de La Témoin xëy dañu xibaar naan yokk gi nga xam ne moom lay yokk ci réewum Sénégal ministre bi ñu dénk wàllu woowu di Abdoulaye Diouf Sarr daal da ciy wax nee na 35 centrales d'oxygène commandé nañ ko ngir cas grave lu toll ci 221 lits d'oxygène dina ko amee yéenekaay gi di Le Quotidien xëy ci ñetteelu vague bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ci réew mi Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi moom nag daan nay fësal télé gi nga xam ne daan na koy télé ci mbir mi kaay gi de La Tribune xëy dañu xibaar naan ñu bu ñu waxante dëgg vaccin yi jamono ji rupture bu garaaw moo am ci biir réew mi di Sénégal yéenekaay gi de L'Observateur nee na lal yi nga xam ne moom la ñuy defee réanimation jamono ji mbire nag maanaam dafa gàllankooro yéenekaay gi di Sud Quotidien Abdoulaye Diouf Sarr ma ngi woote ab mobilisation communautaire yéenekaay gi di Les Échos nee na ñi nga xam ne ñooy waa Suisse nee nañu nag seen ressortissants yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal bu ñu jege hôpitaux sénégalais yi bu ñu jege tamit frontière Mali ak frontière Mauritanie yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy ci rakk Youssou bii di Ndiaga Ndour moom nag ñu joxar ko baaraamu tuuma lu jëm ci wàllum fraude fréquence 2STV procureur contrôle judiciaire la ñu ko daal di def bi nee na ci kaso bi waaye nag la nga ba léegi génn ci mball gi ndax lu jëm ci wàllum sàcc ñi nga xam ne ñooy waa Senelec ñoom nag dañoo woo ab huissier boo xamante ni Mariane Sakine la tudd mu daal leen defal constat bi bi mu leen defalee constat bi daal nañuy gis ne groupe Futur Média ñoom dañu ci lu jëm ci wàllum sàcc courant waaye nag li nga xam ne moom la journal bi xëy di laaj nee na Pape Demba Bitèye mi nga xam ne mooy directeur général bu Senelec ndax dina dem ba sa ci pandaw ga yéen kaay gi di réew mi quotidien ak libération Vox la las xëy du ñu xibaar na ñu mairie bu Fass Colobane Gueule Tapée jamono ji mairie ba yëngu na ndax premier adjoint maire ba la ñu tuumaale ci escroquerie wàllum njubla nga wàllum li njaa ndax dafa am benn projet cantine boo xam ne moom ba Babacar Diop moom la ñu ko joxoon xaalis ba toll ci vingt cinq millions mu daal di koy ngar daajo waaye nag soo moytuwulee benn weeri kaso danañu ko ko tribunal xëy duñu xibaar naan ñu département d'état américain ñoom nag daan nañu génn ab rapport ci lu jëm ci wàllum transparence budgétaire waaye nag ci déndu Afrique na lu toll ci fukk ak juróom benn réew yoo xam ne ñoom def nañu ay jéego yu am solo ci lu jëm ci wàllum leeraange ci budget yoo xam ne yu am solo la waaye nag bu dee Sénégal Sénégal puusul paasul Sénégal ci nga dikkul mbay laara rapport bi nga xam ne daal département d'état américain ñoo ko génne ñoom nee nañu Sénégal ci lu jëm ci wàllum transparence budgétaire amul yenn jéego yoo xam ne réewum Sénégal Sénégal daat na ko say def yéenekaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñun ñi nga xamante ne nag ñooy éleveurs yi ñu doon def opération tabaski ren jii nag seeni mbir dafa cóola la ko waral bokk na ci liggéey yi nga xam ne moom la ñuy def ci biir Ndakaaru yéenekaay gi di mi Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna daan na yëkkati ay kàddu ci 475 millions yi nga xam ne ay faux billets la gendarmerie teg ko loxo ci diiwaanu Kër ma Massara moom activiste bi nee na Macky Sall activité politique yi xam ne ma ngi koy def ak APR maanaam ay faux billets la ko Macky Sall di financer